asalaamaaleykum euh, cher internet univers info TV chaque jour day nekk mbégte ak contentement di leen ziar bu baax a baax ci ànd bi nga xam moom ngeen ñuy ànd à travers di amaat mbégte ak contentement chaque fois rek bu actualité amee wala dara lu loo xam ne dafa indi ay euh, euh, leeral ñu daal ci ànd ak ñi nga xam ne ñoom la concerné ku ci mel ni Fama nekkatul koo xam dañu koy présenté mu nekk présentatrice bu mag a mag foofu ca RDV mbay moom la univers info TV daal di dalal Fama noo def. waaw maa ngi fi salaamaaleykum di nuy ñëpp nag euh, euh, di nuyu waa duna di nuyu waa Sénégal di nuyu tubaar fakal kilifa yeeg aada yeeg kilifa réew mi waaye rawatina di la nuyu di nuyu sa patron nga xam ne man moom ñoo bokk liggéeyukaay. Mhm. di ko nuyu bu baax a baax mu nekk xale bu si loxoom set. Mhm. du nuyu képp koo xam ne rek yaa ngi ñuy suivre sama dokk yi. Mhm. Tafama euh, ñu daal lay gis intégration bu bu bu doy waar ci li nga xam ne moo di milieu médiatique bi. nekkul loo xam ne facile na parce que dinañ la gis ci yenn programme yi ku xam faama xam ko ci boole parce que foire yi tamit doon nañ loon la gis est-ce que mhm. loolu nekk na liggéey bu facile wax nga dëgg mhm. waaw liggéey bi nag euh, euh, facile na facilul mhm. ndax ku xam faama fay dafa am ñaari dàkkantal faama fay géwlu VIP waaye dañu amaat beneen dàkkantal faama fay animatrice ñun boole rek moo nu war waaye liggéey bi dafa xaw a metti ndax soo bëggee boole sa liggéeyu bopp ak sa liggéey personnel télé bi ngay liggéeyee bëgg boole série yi ak dafa xaw a saa ñu xaw a chargé wu. Mm-hmm. mais sant yàlla rek. Mm-hmm. sant yàlla. Mm-hmm. sànq yaa ngi koy wax sa biir wax géwal VIP maanaam day boole sa diggante ak Eva séduction nga ni sa xarit la sa rakk la sa lépp la ba produit yi sax yow moom moo la koy jox. <laughs> waa Eva nag euh, sama digganteek moom nekkatul lu kenn di werante ci àdduna. sama rakk la sama xarit la. Mm-hmm. Eva solution mu Serigne Babacar Sy Malick kooku moom sama digganteeg moom àdduna wërngal këpp. Mm-hmm. xam nañ ko. Mm-hmm. te yag ma fekk sama boutique. bi ngay yegg si mu ma fekk ci beneen boutique bi ñu woolu ma ma ñëw. Euh, dama la bëgg a wax ne la Eva mooy sama rakk boobu yemul rek ci diw yi. sama digganteeg moom bi diw yi paase dafa am leneen lu ca. muy sama rakk nag bëggal ma boppam. yamu rek ci diw yi bi ci des mu am yar ànd ak moom dafa may yokk leneen ndax àdduna wërngal képp kooku mu ni Fama Faye magu Eva solution. Mhm. bi des mu wuyoo am yar. Mhm. kooku sama rak la. Mhm. sama bopp la. mu daal di ñëw intégré ci géemu jaaykatu diw bi. te ku ne xam na ne yow it sa diggante maam Ndiaye Savon ba pare ñoom it neexoowuñu est-ce que Fama du nekk benn faar ci seen diggante nan lay mën a communiquer maam tourner communiquer ak Eva. non Eva sama rakk la. Euh, xam nga damay wax benn wax boo xam ni du jaaxal kenn. Mm-hmm. ndax ñi xam faamu ñëpp ñu ngi ko xam ci dëggu. dëgg la ñu xam faamu yëpp ñu ngi ko xam ci parole. Mm-hmm. Eva sama rakk la man avant Eva am naa yeneen euh, jaaykati diw yu ma daan may diw. am naa ku mel ni Ndeye Khady sama kee naaru fas booti mu nekk sama rak di ma ci diw yi di ma tëral ci ñaqam di ma tëral ci alalam. te maa moom fii moonu boole ma sa caaro yi ma fekk. dëgg la te bal tàkkul fital jógul. Mhm. yàlla boole ma ak ku ñu wax Tima an an dem ak gis na bi ma njëkkee génn senegal tukki moo ma jëlal bii avion ñu ànd tukki muy sama xarit di sama sœur di sama mag day jaay diw international moo leen di jaay diw te doo ko sa gis ci TikTok bi mu rayante kenn wala nga dégg ko coowam déedéet ay kilo patam la toog di jaay di travailler te kenn yëgul. mu nekk nit ku baax te ku mu jaay mu am preuve. Mm-hmm. Eva solution nag yàlla boole ma ak moom. Mm-hmm. mu juddoo fii yaroo fi. Mm-hmm. dëkk Kajoor nag ci Louga diggante sujee rek jàkk di jëriñ ñëw di jaay diw am ci fullaam ak faydaam di sama rakk bopp ñu seq lu nekk kooku nga tudd léegi xaw ma ko woon. maam Ndiaye Savon. déedéet ba bi jour bi nga xamee ni am nañu tuuti euh, diggante ñagas ñagas. xamuma ko mhm. te loolu jeex na sama digganteeg moom jotewuñu dara sama rakk la comme ñëpp sama rakk la comme ñëpp mhm. waaye nag ragal péetar yi xa ñëwal sa ku ne am nga sa xarit mhm. <laughs> xanaa xamoon yàlla mi ñu sàkk jëmu mag moo njëkk am xarit dëgg la moo xool yeneen bi ba mu neex ko mën na ko yaay sama xarit Ababacar xool tubaar fakal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xool ko ba mu neex ko mën na ko sama xarit waaw maam Cheikh Rama Fall bi mu xoolee Serigne Bamba ba mu neex ko dina ko yaay sama xarit. Mm-hmm. waa ku nekk am na xarit <laughs> mais sama rakk la. Mm-hmm. Eva daw ma ci sama diggante moom dara. Mm-hmm. Eva solution. mais mais en tant nga nekk ci milieu bi. guerre bi nga xam moom la ñuy guerre seen biir ku ci mel ni fan yii Tické Laobé génn ak Zal Mbaye di jokko maajoor gi ku nekk di waxal moromam loo xam est que tamit loolu rafet na ci ci réseau yi ku nekk di wax sa morom que ni 15 ans ànd nañ génn ay kàddu yu ñaaw est loolu war na. waa sama rakk ji nag man damay dama nekk kilifa ci réew mi mhm. te diiran ma nekk ci milieu showbiz mhm. ni musuma ci dégg lu ñaaw sama dara mosu fee génn ndax def ma dara ci réew mi lu dul baax yàlla boole ma ay kilifa may ànd ak ñoom mosuñu ma dégg ci lu ma nit di xeebee sama pa kàddu it kenn du ko dégg di ko xeeb mhm. ñoom ñaan ñëpp sama rakk lañ soo bizarre <laughs> dafa xew <laughs> xam nga eh, guddin tembe dañu war a comprendre xale yi ku nekk sa fugg boppu nga yor. Mhm. waaye nanu bàyyi xel àdduna yi leen di seetaan ñoom ñaan ñëpp samay rakk lañu. Mhm. Zal Mbaye sama rakk la sama doom la sama nit la. Mhm. Tické Laobé sama rakk la sama xarit la ñoom ñëpp sama ñaari rakk lañu waaye ñoom ñoo ci toll man nag eh, damay wax ni xulóob xale. yoonu mag nekku ci man may wax ni xuloo géer yoonu géwél nekku ci ñoom la rek dana ci toll. mais Zane sa nawla la moom géwél la Tické Lawbe Lawbe la. waaw bëgg ngaa dégg dëgg Zane Mbaye jëri ngoone la bokk du géwél bu kenn di gën kenn du ko gën ci réew mi Tické Lawbe suudu bu baax la bokk di lawbe te lawbe nag tabaar fakal la boo bañee lawbe bu la sangam laal bu la sangam laalee booba yàqu xam nga luy loolu. Mm-hmm. lawbe bu baax la te kenn gënu ko ci réew mi. bi ci des marqué na empreinte am ci réew mi ba réew mi jox ko bopp xale yi bëgg ko di ko suivre mu nekk nit ku baax. Mm-hmm. waaye nag jote fu ne la yam nanu ko rafetal rek waaye ñoom ñaan ñëpp amul lu may wax ci ñoom samay rek lañ. Mm-hmm. bi ci des seen mag laa bàyyi ma yem place su mag. mais du tee nag li ma war a wax ak ñoom ma wax ñoom ci suuf. samay rek lañ kenn ku ci nekk jom laa gis ci moom ak fulla ak fay ak nangoo liggéey. xale yëpp a baax. Mhm. waaye nag fi guddi toltee bi soo bis. Mhm. <laughs> ndagam mag ñiy tànnaa sante waxuma la xale yi. loolu ayul mhm. ci réew mi la bokk. waaye nañuy rafetal rek nag. ndax rafetal moom ci àdduna lañ ko fekk. man dama wax lu ñaaw. Mhm. en tant que géwal VIP ndax boo nee VIP rek maanaam lu high level la loo xam ni high class la. est-ce que des fois problème yooyu su arrivé du ko sa téléphone wala soit nga dox sa tànk ba ci ñoom jéem ko fay parce que dañuy dem ba di jigante ay baat yoo xam ne c'est pas joli ay affaire de lesbienne affaire de góor jigéen est-ce que ëppul. xam nga man nag duma ma sama yoon nag bi ci des ñaari baat yooyu nga tudd man duma ci jaar. te it eh, yàlla dimbali na ma ba lu ma tegul sama bët man faama fay géwlu VIP xale vitamine taalibe Cheikh duma ko eh, wax net ko duma ko déglu xuloo nag mbalit la <laughs> ko jot sa borom da ngay tuur bu ma xuloo woon ak yow léegi nga xam mbay ci bi ma ciy tol ci xale mhm. waaye nag xuloo mbalit la man na ñàkk ci seen diggante na ñaan ñu ànd démb tey soog a ñëw leen ma xamee woon leen ca Papi Show mhm. muy géwél bu baax bokk ci ñaari femme deret yoo xam ne man ca laa bokk mi ngi ciy jéeri ngoonee bokk ci Mbambu Demba maanaam dama la bëgg a wax ni la man Fama Faye géwél lu ma tegul sama bët pour man baa di ñaaw yi ngeen wax amul ci réew mi mosuma ci teg sama bët <laughs> bat la rek xuloo la rek. Mhm. xuloo la rek mbay mbalit la na ko jot tur sa morom. waaye man pour man loolu amul Sénégal ndax Sénégal ñu baax a fi nekk. Mhm. ay mag ñu baax ñoo fi tëdd. Mhm. waaye na xale yi ñoom ñoo toll foo xam ni ay slogan yu neex la ñu bu njëkk ba boo nee VIP la. waaye fi toll fi jamono toll xale ñooy xool lu leen neex ñu di ko wax. Mm-hmm. xuloo la rek waaye nag baat yooyu man euh, ci àdduna dama ko teg sama bët. Mm-hmm. ndax mosuma cee teg sama ba tey du euh, ma ci mës sa teg sama bët ndax man lu baax rek laay xool lu baax rek lay gis lu baax lay dégg. Mm-hmm. lu baax lay wax. macha allah ci lu baax loolu euh, tout récemment mm-hmm. rek ñu ngi perte sunu maman ki nga xam mooy maman jaaga ñu gis ni Fama tamit doon na nekk euh, maanaam soriwul woon waale à 100 pour cent bi loolu amee bi loolu amee ana nan la la fekkee ak tamit ay son bii nii yan conseil ngay bàyyi waale parce que c'est très dur nag perte ay ay waajur ci mel ni papaam yaayam ak sœuram. moo metti Mm-hmm. dafa nekk lu ma dund ñàkk waajur uh, man su may wax mën naa ci dama ci dund lu metti mm-hmm. yaay amul remplaçant yaay gàllaaj la mm-hmm. man dama ñàkk yaay ñàkk papa man dama ñàkk sama waa ñaari waajur waaye nag uh, ndok bi ma desee li ma desee waaye li ko dal dafa metti baat boobu mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi yëngal sama xol baatu ñàkk waajur mi ngi may laal te dama sensible mi ngi mi mi ngi mi ngi may mi ngi may gañe euh, te suma ma sañoon damay waxtaan ak te dara duma duma duma laal ndax euh, waajur moom boo ko xasee ñàkk dafa xaw a metti waali mën na sant dara yàlla. Mm-hmm. waajuram nit ku baax la woon ma ciy nuyu sama yaay bopp. Aida Saliou mu Serigne Saliou Aida Saliou sama yaay la sama xarit la su ma jaxasoo ak jaaga grâce à moom ndax moom mooy yaay waal yi dëggal boppam ci réew mi te daw ci dara Kiné bëgg ko mu njëkk a sargal Kiné ci bi muy dund sargal ko jox ko wàccuwaayam ci réew mi ndax jigéen ju yeew ku ko yeeyoo mm-hmm. mu nekk jigéen ju baax man mës naa di def comme lii ngeen di def ci bërëb bu ni denc ay jigéen kon fekk naa ko mu jënd leen ravitaillement yu baree baree bari di leen ko jox muy nekk lu ma seede man fekk naa ko ci bërëb boo xam ne su ma tuddoon tur ba ñu xam ko waaye fu jigéen defee safaan wala nattu dal ko ñu denc ko fa mu ñëw fa dimbali nit te yàlla tax mm-hmm. dégg naa ko ci daara ji bi ci des man journée bi ma yendoog moom xam nga nit mën nga koy seen ci yottante waaye koro ba ma yendoo biir këram ànd ak Aïda Saliou ak Fama doomam muy sama rak koroog laa xam ci image am ci di xar-xaru kanamam laa xam ni jaaga mag mu baax la mhm. mag mu yiw la suuf nag lekk na ku ne mhm. ndegam suñu ndey yu baax li yóbbu du bàyyi kenn mhm. gën a bés rek moo fi nekk waaye Wally na gën a góorgóorlu dëgg la nag euh, li mu nekk showbiz la waaye yaakaar naa ne ndeyam ju baax ji gore loolu mm-hmm. dem bërki dem li ko dal metti nag gor gu mu dal nga saalit gor laax mm-hmm. li ko dal gor gu mu dal nga saalit ñàkk coon muy monument ci réew mi nga xëy ñàkk moom yi di monument effacé wu toog ci ruqam bari lu mu def ci réew mi. Mhm. di def ko social. waaye nag bi nga ñàkkee ki nga xam ne mooy jigéen jigéen ci jigéen jigéen rek mooy jur kilifa. kon dama bëgg a wax ni jaaga daal euh, yàlla na suuf sedd ci kawam. te ko xool bisam be man dem naa ko. Mhm. kon Porokhane laa waroon dem ànd ak honorable député Mame jaar Fam sama yaay. Mhm. mais dama dem jaale ji soxna Aida ndax bi ma jaaga di teral alalam mais ma xaalis bu bari moom Aida Saliou moo tax kon daal lu metti moo dal waali te na ko sénégalais yi comprendre. Mhm. te waali guddi ñu toll tamit dafa ni ci guddeem waali ci xol. <laughs> waali rek ci xol. Mhm. tamit li ko dal dafa metti waaye na toog dal te xam ne li mu nekk liggéey la. ñu koy mu loon ndayam ji di ko jaale tamit biisi ngoone nit ku baax ku bari valeur ñu ngi ko koy jaale di ko jaale ñëpp ndax moom dafa wéttali Wally Seck maa daal moo génn ci réew mi. ndax kuy dem ci daara yi ci jàkka ji. Mhm. di dem ci prison yi di dimbali jigéen ñi. waaw wax dëgg yàlla nag bu fi jógee li fi jógee dafa rëy ci ñun. loxo bu rëy fi jógee. jaaga loxo bu mag la moo fi génn. kon Sénégal yëpp ñàkk wala rek ñàkkul. képp kuy artiste ci réew mi ñàkk nga. kon nañ ko sant yàlla te ñaanalaat ko. ndax ñaan rek lañ dese ci moom. wax ji bari na coow li bari ji waaye nañu koy ñaan xulwa yi bëriwul fukk ak benn la wala fukk ak ñaar. nañ ko koy sànni ci heure bu baax bi ne daan na ko sànni jaam yàlla te jàgg mi ma gis ah fi daaw na boppam doo ko dem de fi daaw nag du baat yi ngay wax rek waaye def lu baax ci la bokk. Mhm. defar na defar na fa mu dem. Mhm. dëkk ba mu jëm defar na ko boppam fii ndax am na fi yàlla am na fi yeneen bi nit ku baax la. Mhm. mu am solo euh, Fama Thioune ci ci Fama ci li nga xam ne moo di politique bi. léegi yaa ngi ci carrément côté animateur beeg bi sax dafa wàññeeku. léegi politique ngay toog <laughs> politique bi la la taa faama di topp. déedéet bul waxati loolu nag bul waxati loolu xam nga man gore moo ma yóbbu fu nekk. te dama gore. man jéer ñi may àndal sax xam nañ ne gore ma bàyyi fépp dama gore yow yow sama doom ji dama gore. Euh, dama ànd ak sama nday mhm. muy honorable député Mame Diarra Fam. gaynde ginnaaw raay guddi guddi ginnaaw raay alburey maamam nekk jigéen ju sell nekk jigéen ju baax ku bëgg dëkkam man ma juddoo ginnaaw raay yaroo ginnaaw raay dëkk ma ma yóbbu ci beneen euh, euh, dëkk ma dem dëkk fa mais man lu ma am ginnaaw raay la fi la sama baay njëkk a tabax téetar foncé fi laa juddoo fi sama ndey sëy sëy bu rafet bi kon suma juddoo màgg fekk honorable député Mame Diarra Fam bàyyam bu baax bu gore ba daan ànd ak sama baay mu ko wax avu la parole bu ma jëlee teg ma ci wetam damay ànd ak moom bala muy wax maa njëkk a wax dama koy wax ay maamam waqu buumi gor waqu baati gor mu doog a jël parole kon su ma politique ànd ak honorable député Mame Diarra Fam mën naa nekk. mais mu nekkee biir assemblée nag. force la gaynde la ko tooñ mu duma la xanaa xamoon ne yow man ni ma baaxee ba ma tooñee léegi booy ñibbi tubaar fakal da ngay yóbbaale ñetti xaañ <laughs> ñetti xaañ xaañ léegi tout de suite sama ndayo di boo gisee géwél yi nin ma joxee respecté ma respecté ñëpp ñëpp respecté ma génn ñi bëgg ma jox ma bopp xam may kan waa sama ndey ji laa doon du ma xuloo du ma xeex waaye boo ma tooñee ma la boo ma ñaanee ma may la sama yaay noon lay dundee ak àdduna daa bëri ful gaynde gi jékki ci moom moo nekk ci mag moo tax nag fu mu jëm ma ànd ak moom du politique de géwél laa fu mu jëm ànd ak moom. borom ñetti ñaari fal yi ci man boole kooku fal ko fal ma may géwél kooku buur la di kooko tooñ xam. Ah. tooñ ko xam <laughs> <laughs> xanaa xam nga woykat bi juumul. Uh-huh. daf ko way ñaar <coughs> dama ne xale yi Eva ngay yeb yeb seet. boo ko yebee di nga xam ne mooy doomi buur bi waaye honorable député Mame Diarra Fam nga yab yab ko njukki la dëkk dëkk bàyyam la def tali moom laa ndural ci gaynde eh. loolu wàññiwul dara géwél ak politique ñoo ànd hmm. su mbubb jotee ne dama ne man su mbubb mbubbu animatrice bi jotee hmm. damay dem li def sama liggéey normal ñibbisi ci kër gi lay ñëw télé nag ak lii toog fii ci boutique bi du nu benn hmm. su série jotee ba am na ñu bëri dama ne ni jaaxal ni ma ngéwelee ni ma neexee de fois ma daj nit mu gaañu. Mm-hmm. rebat de ma dindi stress am soo ma fekkee ci série bi nag danga naan est-ce que kii faa a fay la. mais pank bi nag dama ci jor fa ak lanta. mais pank leneen ngay gis. américain rek laa indi di ki teg ko. mais pank bi ñuy wax ci faama pank bi. gaynde laa nag ci deret ji la. juddu bee rey deret jee fort xam nga foo ma bokk ngoromeen. Mm. soo demee sama kër nday njëkk a ci seen cee ndogu mos laay. Mm. ah mbay bu ma pankul kuy pank. <laughs> te nag ma xamal leen euh, géwél pànk yàq ko mooy defar géwél géwél dëgg day pànk ndax day tax géer gi nga àndal bu ne dama ñëpp dañu koy déglu ndax géwél gi mu àndal moo nekk nit koo xam ne tubaar fakàlla leen ko wis kun ko wis nga dem man Serigne Babacar laa àndal waaw moom mu wis ni ma mel waaye nag ma dem kër Serigne Bamba fekk fi Serigne Abdou Karim Mbacké borom ma xaleex laa waaye nag ma jébbal ci nit ku baax Bamba Mbaye mbokkum ndeyum sëriñ Mamour Mbakke maawaloo jur ko waaye man may ba ma pànkul kuy pànk man li ma boolee bari damaa boole kër sëriñ Bamba uh-huh. kër maam Thierno Ibrahim laa boole ak kër sëñ Babacar uh-huh. sëriñ Mamour di sama sëriñ maawaloo jur ko uh-huh. mbokkum day Bamba may ma ci itali waaw ba ma pànkul kuy pànk <laughs> loolu rek la temps bi xoj nañu mm. ana ana ban facette la ñuy xaaraat sa faama ci commerce bi animatrice bi actrice bi ana lan lañ koy xaaraat ci 2024 ci 2024 bi lépp nag dama ne man li ma yenu dafa ko yenu dangay am jom des na tuuti ci li nu jëm di ma seen ci ay série yu bees tàq maa ngi liggéey ak Diarra Niass ku xamul Diarra Niass dégg ko xale bu bari jom maa ngi ci série aawo mu yor jiri mu yor aawa nekk xale boo xam ne ku mu ménager sax ñu dégg la àdduna dégg la kooku may Diarra mu nekk nit ku baax ku loxoom set ci aar euh, maa ngi Pikine ba tey juguma Pikine ndax Pikine buñ ma woowee damay dem liggéey ak ñoom ak yeneen label yoo xam ne maa ngi toog di leen xaar mhm. xaar ma ci yeneen série yu bees waaye xaar ma ci yeneen taasu yu bees mhm. waaye xaar ma ak giir ñi ma àndaloon ma gën koo beesal ba mu bees mais candidature Salam Diallo en étant que nekk politicien candidature Salam Diallo Salam Diallo dafa bëgg a boole candidat euh, bul ni ma en tant que politicien en tant que géwél xaar ma la li neex bu ko neexee. Uh-huh. moom mooy doomi géwél. <laughs> mais Salam Diallo xaaroon nañ ko ci taas yeeg yooyu. déet waa bëgg ngaa dégg-dégg. Mm. Eh, man man ma sama ndey woon léegi. Mm. damay sam ab sa giro mi ma àndal ay mbooloo la àndal di ab sa giro te politigul su ko neexee léegi yekkal ma mbooloo mi ma daal di teg léegi samay sabar géwél la. géwél daa bëgg lu baax ti ñun géwél ay noble la. mais est-ce que capable na tamit yor sunu réew bi Salam Diallo. voilà laaj ma ku ko njëkke ah. kan la. kii rajo xi fii rajo xi feneen ma di ko ñaax doomi géwél la déggoo ma de. Mm-hmm. dama ni mm. man bu vote jotee su ma ànd ak sama ndey ji ku mu àndal moom lay voté waaye su ma moomee sama bopp di dem mm-hmm. damay bàyyi Idi bàyyi ma dikkee muy doomi géwél di sunu mbokk ma bàyyi makki mi nga xam ne pare na pour dem ànd ak salaam mu yor réew mi géwél yëpp jóg topp ko waaye géwél mbokkam lay àndal. Mm-hmm. réew mi toj ba ngaa dégg-dégg. Eh. na ma salaam woo. ban ban ban poste ngay gérer booba boobaa. poste bi ñëpp man yëngu ni sama ndey ji moo ma jox budget. Mm-hmm. honorable député Mame Diarra Fam budget la ma jox. yëngu ni suba gannaaw suba la kaat. Mm. xam nga ku may àndal. Mm. Aïda lay àndal mu ànd ak mbooloom ma jiitu mu topp ci sama ginnaaw ndax nag buur bi day dem ci xee ci xare day ànd ak géwalam dama ne kenn ku ci nekk boo amee sa fit doxalal salaam bu sampee ndëndam ñi ko ñi ko gëm ànd ak moom géwali ànd ak moom monument la nag bëri na ñu defal ci réew mi bëri na wéykat yu ñuy dégg fii ci réew mi ñi di ko toj ba guddiñ tol tamit ñu bokk ci tendance bi ci ginnaaw salaam lañ jógee mm. wela maal ci digg réew mi salaam di gaynde <laughs> na dem doxalal doxalal mi ngi noonu. Fama merci beaucoup. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. Mm. ci dalal bi nga xam dalal na la ko biir Univers Info TV mu nekk monument nit koo xam ne macha allah gars yi jox nañ ko nopp ndax liggéeyam bu bu set bu muy def ci biir RDV ak euh, yoo xam ne mi ngi koy def ci communication bi macha allah ñu ngi lay jaajëfal bu baax ana lan ngay tàggatoo. waaw euh, di kontaan ci yéen nag. Mm-hmm. tey yéen ma fekk sama place ndax am na jour yoo xam ne damay ñëw jaay si. Mhm. su ma xëyul damay gontu. Mhm. Euh, ndax loolu mooy waree fu gor. Mhm. du question animatrice bi rek ngay continuer du série yi rek euh, du wayaan wi rek moo neex li ngay wayaan di ko yóbbu ngéwél boo ko daanee doole day gën a duun kon tubaar fakal la ma kontaan ci yéen bu baax du nuyu nag jigéen ju sell ju baax ci man muy ab ma giro madame Mbacké borom fondation Afrivision ma Amérique def social di ko jaarale sama loxo nekk nit ku baax noonu laay nuyoo sama yaay ji nga bu léegi honorable mm-hmm. euh, di nuyuwaat Eva solution sama rakk ji mm-hmm. borom natt yu wóor borom diw bu leer bi mm-hmm. dama ne ko démb damaa feebar fan yëpp waaye ñuulu ma ba léegi maa ngi gën a jong ma te ku ma xam tabarfakal la xam ne bind mi dafa jong kon sama rakk ji maa ngi koy jaajëfal ak sama nit ñu baax ñi ma àndal yëpp di dem ba Dubaay di fa fekk roq maska nekk di jigéen ju baax di ma tërale lu ne di wax nag Sénégal yëpp invité naa leen dama am sama bis bopp te it ngi la cee invité waajal sama doom bu jigéen bi nga xam ne moom la ma yàlla may muy benn bu jigéen dama koy xewal la di set di ci woo géer ñi di ci woo géwél di ci woo loobe di ci woo sama xaritu njaago yëpp nag ndax tubaar fakkal la foo génne rek di dem xooli Zizi fu mu toll te ñoo moom réew mi ci lañ bokk. ma ci ñëpp di leen ci woo di ci woo seen nawle influenceur yëpp nga xam ne mm-hmm. ñi nga xam ne am naa ceeg ñoom affinité ñoom ñëpp pare nañ takku nañ ba dëgg di ci woo Médoune di ci woo ñëpp. Mm-hmm. di wax nag le 17 maa ko moom. takku naa ba dëgër woo samay bokk ànd ak ñoom sama néegu ndey ak sama néegu baay rawatina sama génn ñi ma àndal mhm. ak samay xarit yi ma àndaloon démb kon ñu ñëpp ñu nga jëm kees le 17 damay xewal sama doom tañ laa yu xëy am ndaw waxtaan ak ko rek mhm. am ndaw nekk nit ku baax artiste ni ma maag dañu yàgg bu ma xëyee dinaa ca def la ma man mhm. ma ànd ci ak euh, soxna Jaara Ngom mu ciy def la ma man waaye bàyyi sëriñ Jurbel nekk nit ku baax moom it takku ba dëgër ni ma dinaa ci def la ma man Euh, Maguette Mbaye artiste Ngoné Ndiaye géwél sama digganteek moom umpul kenn ku ne gis sa barki démb këram. Mhm. la ma fa def ak la ma fa wax ak nam ma def. Mhm. teg ma ci kaw ni ma yaay sama rak kon àdduna yëpp képp koy artiste woo naa la ci sama bis boobu nga xam ne benn bis rek moom la am. la di seet di kontaan tamit ci yéen bu baax a baax. Mhm. nii rek la euh, góorgóorlu leen day baax. ndax man ci lii laa njëkkee. site internet laa njëkk a nekk. Yelli TV génn ko dem si ko ñaagal ak jawaar. jëkkëru Xadisa si ko sikoo nekk nit ku baax nekk Amérique di def lu baax. ma nekk ci sitam njëkk fa def émission ngéwél gi. mu cartonné nag àdduna yëpp ci lañ ma bëggee. kon loolu sant yàlla bu tey bu ñu toogee ci télé bi nag ma nekk ak euh, sama patron bu baax bi. Diop Iso tabar fakalo ñu bëgg ma. sant yàlla rek la gën leen a góorgóorlu. ndax nag seen site internet kilifa gi dafa baax. Mhm. xale ba loxoom set na. Mhm. bëriwul lu ma nit di gis ak site. Mhm. waaye kooku bu ma soxlaa ko soxla ñàkk. xale bu baax la mbokkum ndeyum Yves. dëgg la te du juddu jéeri ci réew mi. Mhm. am leen fit te xu signal da ngeen dem te kenn du leen tey. merci beaucoup merci beaucoup. ok <laughs>